ku fi laaj ab am ñuy jax-jaxal di wax ne mbugalum bàmmeel amul mu ne loolu lan ngeen ci laaye biir nit ñi amul lënt moom tudd mu ne amul lënt moom tudd laaye jum jàpp wala yu mel noonu bi mu wax ne parce que mel na ne li ma déggoon ñu koy wax doy dafa mel ni dañ ne dañoo istidlaal ci benn laaya ne man baasana min marqadina hada xanaa loolu feltaaw ak moom ci béréb ñu ne ginnaaw yàlla dafa nettali ne ñooñu tëddoon ci seeni bàmmeel buñ jógee dañ naan kan moonu dekkal ci sun nelaw yi ñu nekkoon ñu ne kon këkkat ñoom dañ doon nelaw ba يوم القيامة نية لين كن نكون جمول نقول مول مبغلوم باميل دا فا صح سي سنة صح تام سي القران في القران بروم بي تبارك وتعالى بأن وحاق بآل فرعون سوء العذاب وحاق بآل فرعون سوء العذاب فرعون كي اندندوم سوء العذاب دا فدال سين كو سوء العذاب مويلان النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب كن أمغ في سوء العذاب أمغ في أشد العذاب سوء العذاب في مهم بغلوم بامير موتخ مني mbugalum bàmmeel moom mooy annaaru yuradun alayha xuduwan wa ashiya suba ak ngoon sawara wa leen ci sendal di leen lakk ci loolu rek la ñuy konte bu yow ma taqumu saatu bis boo xamee ne nag saa taxaw na nag su boobaa nag adxiloo ala firawna ashadd al azab foofa la duggee nag jahannama waaye lu jiitu loolu mbugalu mbameel boo jëlee laay jooju boole ko xaddis yi ñëw yépp ci mbugalum bàmmeel da ngay xam ne lu sax la amma laay ji waa ji tegtaloo mi man baasana min marqadina loolu tegtalawut loolu marqad firiwut ay nelaw waaye béréb ab nelawukaay la firi marqad su ne woon man baasana min ruqaadina wala min ruqudina su boobaa ci loxo laare bi dañu xam ne ñi kon dañ noo nelaw waaye ab marqat mooy béréb bi mooy majlis majlis bi mën nga fee nekk ba noppi da ngaa taxaw kee daa taxaw waaye fii majlis la kon nekk nañ ci béréb boo xam ne ab xabru la ndax ka fa nekk dafa dee waaye bi mu dee ba noppi nag ña ngi koy mbugal ci biir bàmmeelam su fekkee ku yeyoo mbugal la ànd ak ne foofu mu nekk barabub nelawukaay la ci ñeen ci ñenn ndax am na ñoo xam ne bu ñu fa nekkee ñoom ci xéewal lañ nekk dañu yeewoo ko nelawoo ko naan seen yu neex ak noos ba defee ne fii mooy àjjana ñenn ñi ñu leen di mbugal bañ yaakaar ne sawara mënta gën a tàng lii kon loolu mooy mbugalu mbàmmeel naam fadal jazakumullahu xayran yaa cheikhana naa damay laaj bi sama bopp mbokk mbokk ngay gën a góorgóorlu ci di gën a jege boroom xam-xam yi ci subahaat yi nga xamante ne ñu ngi koy sànni bu ñëwee fekk balaa ngay àgg ca cheikh ba sax ko yow mën nga kaa tontu bokk na ci subuhaatu kooku yi muy wax mooy bëggalu bàmmeel amul wala nit dañuy wax rek comme dañu lu bàmmeel am na ñoo xam ne amuñu bàmmeel am na koo xam ne ci géej gi la faatoo jën ba lekk ko am na ñoo xam ne ku dee dañ koy lakk mu nekk dóom kon lan mooy seen bàmmeel waaw loolu mooy li daloon waaja ka doon dénk ak njabootam ne leen dafa ragal ragal sawara ba nga xam ne mu ne leen bu ma faatoo na ngeen ma lakk ba ma doon ab doom ngeen tasaare ko su ko defee danaa mucc ci sawara yonent bi salallahu alayhi wa sallam mënu ko nettali kooku shakka fi qudratillah ñooñu dañuy sikki sàkk ci kattanuk yàlla ki la amal ci lu dul woon dara nga xam ne fu dara nekkul woon mu def fa dara kooku dekkal fu dara nekk dana ko jaaxal moo la bind bind say waajur bind say maam la ko tàmbale ci aadama ba doom aadama ju masa ji moo leen bind te duñ la wax ne lii mooy matière boo xam ne feneen la ko jëlee waaye bu dee ci suuf la ko bind suuf moo ko bind moom yàlla maanaam ci yi muy bind ca la jël def ci lu ko neex xool lu ko neex ne ko kun fa yakun mu daal di soppi ku nekk doomu aadama kii jël suuf xool xool xool ba àggal defar ko ba mu nuroog nit mu ne ko kun fa yakun mu daal di doon doomu aadama jóg toog di wax kooku dana ko jaaxal doomu aadama ji dee woon ba nekk ci bàmmeel mu dekkal ko mu jóg taxaw moo xam ci biirub jën la nekk walla ab dóom la wala ci biirum ndox la nekk dajale waat ko moo gën a yomb sunu borom tabaraka wa taala ci sos ko te fekk doonul woon dara kon képp koo xam ne gëm nga ne yàlla da laa bind ci lu doonul woon dara gëm nga ne ak foo mën a dugg dana la dekkal ndax dekkal moo gën a yomb sos wa huwa noonu la ko wax moo ko gën a yomb naam Omar ayib jazakallah cheikhana xeyral ndax am na laaj waaye dinaa taalix rek xam naa ni adduna bi ni mu yaatoo kuy nelaw amoo fooy nelaw fa dugg ci biir suuf di nelaw hmm? ma ne bi ni mu yaatoo hmm, hmm. ñoom ñu ne loolu nelaw la mbëggoonum bàmmeel nelaw la kuy nelaw ci biir suuf ngay dugg pour nelaw kuy nelaw. di dugg ci biir suuf pour nelaw. waaw. beneen bi nelaw xanaa yaay yóbbu sa bopp nelaw boo xam dañu lay yóbbu dugal la ci biir takk la moom léegi ñoom dañuy sàkku ci ñoom ñu dem nelaw yi foofu ñu xool. dañuy sàkku ñu dem nelaw yi foofu. wala ku la daañu <laughs> leen fay yóbbu su boobaa mais ñoom nañ dem nelaw yi.